ba léegi waaw beneen ballon pour ballon pour ah ki ko doon jox une arbitre yaa faute arbitre dafa ñëwaat si faute bi tout à fait justifié kontaan naa si loolu waaw nee na day yëkkati si bordeer yi si geste boobu mu def noonu si bordeer yi yëngatu leen waaw gars yi ñoo ngi ngeen yëngatu possession def la domination def domination stérile y' a pas de but y' a pas de finition. donc pour ñoom du dara peut-être ils vont essayer euh, de faire le coup du tonnerre profité si coup de pied bi comme ne daan lañ nekk dans tous les cas ça peut finir mal attention entre Gouy Gui et l'ASC Jamono mooy sol bleu blanc Gouy Gui moo zone bi match bi 0 à 0 la ngeen fàttali que ni match bi daaw la woon ñu annulé woon ko donc match daaw yi nga xam te ne nawetaan woon donc moom la ñuy continuer pour l'instant. ba léegi ba léegi ba léegi laissez dribbler attention jox ko bal bi heure amul gardien bi génn gardien mu ngi ñëw na xool kaay rek na xool ka oh oh ganna comprendre parce que bal bi dafa rebondir bal bi dafa rebondir waat loolu mën naa koo comprendre. Attention contre-attaque, attention un contre un. Oh, mal contrôlé. wande restaurant ma saba neex waay co le centre Zal passe na ko de... attention pas positif contre son camp monsieur Labine est le coup c'est lui Karim Senghor capitaine de l'ASC il y a jégal ma C'est reporter bi qui est loolu de Waouh, waaw toujours 0-0 Aïsé Diamono attention quelle occasion quelle occasion ah, goal quel but pour Amadou Bousso Aïssé Diamono Aïssé Guigui 1-0 pour Aïsé Diamono attention gars attaque à Bibi. attention les gars on joue quel but quel but ah oui le but pour Mbappé waaw di waxante de na Barro. Guaião. Você gosta, né? Jumbul, yang dengar, yang ulang masih di rumah le. ಸುವರಚಂದ್ರ ದಾಶೋಡಪ್ಪನ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಲವು ಮನಸ್ಸಿದಲ್ಲಿ Thank you. une révélation côté de jamono Doudjame, de dina ko oui dina ko oh ils ne se sont pas compris ñoom ñaar déggante wuñ entre le Messie, Maïssa ak euh, ah, euh, c'est un jeune talent il est très talentueux il joue sans complexe il fait un très très très très très très très très gros match depuis le premier mi-temps il se donne à fond Keltuli. at bi yaa faute waaw heure bi mu seetee tëdd mais nañ jàpp ne léegi règlement yi dañoo changé parce que moment yii léegi heure boo tëddee arbitre day pause temps bi téye ko fa wala mu téye ko si temps additionnel bi. Mbappé contre attaque le Mbappé le Mbappé de Joal Fadiouth attention. def na ouverture kooku mooy benn baas kooku kooku mooy Mahrez attention Orzo amul de attention ah Mbappé dafa mel ni ku sonn Mbappé looy def nii Mbappé Mbappé looy def nii Mbappé lii du yoon lii du football Mbappé looy mel ni ku sonn. léegi 1-0 nañ nen waa guy gi sànni nañ nen sànni sips waa guy gi sànni nañ sips sànni fi nen sànni nañ fi kaani jaxatu lépp bii dugagul. door nañ fi sondal taal nañ fi feu. wala quel contrôle quel profondeur ay Marcelo yëg na Marcelo yëg na fasu naaru góor bi yëg baal mu dem nga am sa corner waaw kooku daal ka du jakarta la cak cak rek lay def al bal bi da koy xool mu ñëw mu dégagé mu tulli amu si xalaat un deux trois tulli yow loo bëgg a def tey ngeen de tey ngeen de ah très bien vu waaw def na ko Mahrez jox na ma da lay un contre un rey na la ah, doole. ba léegi match bi daw le centre kooku Zal Kayre la waaw boobu def na quel bon choix de Zal Kayre Zal Kayre tey dafa ñàkk caaxaan gardien jubal balaa waaw ah, jël na boolu kere bi di ko joxe waa jamono instant yi nii dañoo kontaan parce que jàpp nañ ni match na jël na si kere yëpp jënd nañ ko jamono dañoo am xaalis de jamono dañoo riis waaye lii daa mel ni weesul 2000 daa mel ni weesul 2000 kon riis amul foofu waaw le centre attention oh baaxul baaxul baaxul baaxul eh! jël na glacière bi ah guy gi jël na glacière bi guy gi jël na glacière bi oh là là guy gee gën a riis oh guy gee gën a riis guy gi moo gën a riis guy gi jël na des ci glacière bi yoo non tribune bi moo naa fi gars yi ñoo ngu ñoo ngu ah jamono ngi yëngal jamono ngi yëngal fii moo gën a neex fee jamono ngi yëngal jamono ngi yëngal ba subaa ngi daw oh là là guy gi moo gën a jamono waaye jamono moo dàq football guy gi moo gën a riche jamono mais jamono moo dàq football attention pour l'instant jamono moo mën a un. Allez Marcelo le Ndeysaan maa lay bëgg bu baax jaajëf <laughs> waay di bëgg xes maay ka eh, ñoom dañuy suus eh, jëlal rek jëlal rek guus guus taj guus guus guus taj guus eh, guus taj ba guy gi moo misik ñoom bu euh, def doolagum nañ dugalagum nañ ba léegi ñoo doole mystique bi ba léegi ñoo ngi koy doole arbitre baa ngi koy déggal gardien baa ngi dindi mystique bi luñ fa luñ fa def yëpp dindi na ko peut-être que bii bi fii la si fin temps bi nawetaan waxul dëgg gars ni ma leen wax rek sànni nañ nen deful effet ñu sànni sondel deful effet ñu maye chips deful effet ñu jënd banaana deful effet meew deful effet xëy na ñu teg ci kaay na def effet attention ba léegi taa baa jeex un zéro pour l'instant quart de finale nawetaan 2022 eggal lii ah gardien baa ngi def yëfu rewante yëfu caat gardien baa ngi def yëfu caat quel match gardien bi dafa capricieux gardien bi ku capricieux la ah kii dafa capricieux ah xaj na fi un on xaj na fi jàpp leen ni règlement dafa changé ñu fàttali leen ko joueur lu mu tëdd si terrain bi wala gardien lu mu tëdd arbitre day téye temps bi nañ ko xamanoo noonu na ko ñëpp xamandoo les réglement ont changé joueur lu mu tëdd wala gardien lu mu tëdd arbitre day pause temps bi yokkat ko si temps bi kon nag rey temps amatu fi yoon kuy rey temps rek daa fekk xamoo il faut que consigne yoy muy ag ci jeur ñu koy xam-xam ne reetaan amatu fi ndariñ bo reetaan at bi day pause temps bi match bi nag dafa melni turbine bi jeex nañ tàkk ñu bëri ñibbi nañ parce que gaay yu bari japp nañ ni match bi 1-0 lay jeexé comme niko boy di waxé rek ñoo ñu yollé comme na bu tëdd waaw ma fàttali leen rek loo tëdd rek arbitre pose na ko temps bi waaw du dara xëy na peut-être nag na kase rythme bi damm moralu beneen équipe bi mais jàpp ne côté temps moom du def benn effet. yéeg na monté na en puissance pour frapper le coup de pied arrêté très bien tiré attention cafouillage xëy na peut-être bi na def effet bu mu door numéro 7 dafa mën a door arbitre kooku daa mel ni hors zone ah hors oh, oh oh là là oh là gardien. quelle bonne sortie du gardien arbitre nee na pep pep pep jamono door na guy gi 1-0 si quart de finale nawetaan 2022 ak Gali zone 9 di remercier le président de la zone Youssou Touré leen wax ni vous êtes sur la chaîne leader de la petite côte Joal Fadiouth TV abonnez en masse pour suivre toute l' actualité des navétanes de Joal Fadiouth et coupe ministre Inch'Allah, nous sommes avec vous, partout avec vous, toujours avec vous.